tey yow nan nga gisee taxawaayu Ousmane Sonko. waaw Ousmane Sonko moom mi ngi progressé bu baax a baax a baax. c'est sûr et certain tànk yi mu jaar ak lii di xew ci askan wi su fekkee mi ngi continuer maanaam 2024 premier tour lay jël réew mi. premier tour. premier tour bu fekkee lii continuer na ci askan wi. Mhm. premier tour la Ousmane Sonko. la ñu àndal. dama ne olof dafay waral di wax ne luy ñuul moo ci am ñàkk Ousmane Sonko moo fi opposant fi mu toll nii bu crédible bu radical bu mën a jàmmarloog état loolu kum neex ak kum naqari ñoo ci bokk yam waaw. Euh, léegi Fallou euh, dafa am ñu bari ñoo xamante ni aussi ñoo ngi jóg di euh, gor tànki Ousmane Sonko ci pouvoir bi rawatina ñi nga xam ne tey ñoo nekk ay transhumants yow boo leen doon xelal mag Sall tey ci kaaw Ousmane Sonko lan nga koy xelal rawatina dossier bi. waaw ah, xam nga dafa am loo xamante ne président de la république moo ko waxaloon boppam. kon moom lii xew ci réew mi nii ak li ñu jëm moom mooy xool parce que lépp ci ay loxoom la nekk. fi mu toll ni ci loxoy président. léegi Ousmane Sonko tey buñ ko arrêté woon lan mooy xew si réew mi. waaw mais xam nga arrêté guñ ko am lu xew kon buñ ko arrêté yaakaar naa ne gouverneur fi dana jafe.